bi mu ko defee nag damaa yónni ci ki nga xam ne moom la def muy jëwriñam ci yoon bi muy Serigne Sidi Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Ahad mu xamal ma boo demee nee ko ni ma ko defee sama jëwriñ ci yoon bi def ko jëwriñ ci dëkk yi teg lépp ci loxoom noonu laa ko jiite la waat ci mbir mi nee ko lépp tegaat ko ci loxoom ba ma ko waxee moo ko sëriñ bi ba alxames sëriñ bi woo ma woo Serigne Modou Lo Ngabou woo Serigne Abdou Lahad Ka ak ñi ko seqal wax ñi mu ko xalaate ak ñi mu ko santaane mu wax Serigne Modou Lo ne ko yow ko liggéey bi ñoo yow ñoo ci bokk ndax liñ ci doon rek ci doon te xam na liñ ci daan def ci jamono Serigne Sall ba dëgg kon nag ndigal ni ma ko Serigne bi joxe may yeesalaat naa ndigal ci yow nga taxaw ko di ko saytu na nga ko daan doxale bi loolu mooy ndigal li nga xam ne santaane la ko kon nag sëriñ moom ñu ngi la ci ñaanal ñaanal laa sax lay wax yàlla gën laa dëgëral gën laa kàttanal ba nii nga xam ne tàmbali nga ko toog léegi mu ñaar kenn wala mat na ko te dëkk bépp teg nañ seen bët ndax eh, adduna dafa baaxoo lépp loo gis muy dox wala mu jàkk wala mu tegu ci yoon li fi loolu laa nga feeñ rek lay njariñ la doo ko xam waaye bis bu fi tegu koon benn bis wala ñaari fan rek nit ñi dañuy xam liy njariñu Safinatul Amaan ci dëkk bi commune bi itam ni ko sëriñ bi santaane ci la waxe Abdul Ahad Ka ne ko na nga ci sa loxo laa ko teg na nga woo mboolem chef de yi ak mboolem délégué quartier yi ak ñi ko war a ànd ak ñëpp ñu maase saytu liggéey bi xam ne ndigalu Serigne Touba la ndigalu Serigne Touba nag képp ku bëgg ko ku yàlla defal ndimbal te nga am tawfeex rek te xam ne ci topp ndigal ci la jëriñ rek ndax Iblis kat ñàkk topp ndigal moo ko yóbbu di ko dal te la ko ko teg mooy jëfandikoom xel moo tax ndigal saa su agsee la gën mooy fexe ba xam ne jëfi ndigal rek mooy la lay loolu nag ku ne danga ko tàmbalee ci soow te xam ne wàccu kenn ndax Cheikh Ibrahima Faye daana wax ne liggéey Sëriñ Tuubaa war na ñëpp te du wàcc kenn kon nag na xam ne liggéey li sëriñ bi santaane lu suñu borom santaane la muy yeesal ko ngir bëgg ñëpp di ko def xam ne buñ ko defee itam seen bopp rek lañ koy defal di gërëm nag njabootu am Cheikh Ibrahima Fall ci njiital Sëriñ Cheikh jëmm ak boo leen njaboot yëpp ak taalibe yi ndax buñ ko tuddee rek mel nañ tudd nañ mboolem Cheikh Serigne Touba yi waaye tudd nañ mu njaboot Serigne Touba yi ndax ñoom xam nañ ne bu dee ndigal rek bu ñu ko waxee ñoom ñoo ci jiitu ñëpp mm-hmm. ndax ku ne ku yaakaar Serigne Touba ku ne am nga leneen loo yaakaar wala loo yaakaar mm-hmm. waaye ñoom seen dara jëndu sëñ ñoom seen yaakaar dafa tàmbalee ci si yom bi sëñ gouverneur de la nga xam ne ñu ngi fi door moom itam maa ko woon ci turu sëriñ bi ginnaaw bi ñu joxe ndigal sëriñ si bi maa ko woon wax ko mu ànd ak préfet ak sous-préfet ak mboolem chef ñu ko sëriñ bi teg ci seen loxo ak ñi ñu koy àndal lépp loo xam ne gis nañ ko ci ndax xam ngeen ne naka njëkk ba ko Cheikh Abdoulaye Mbacke tere itam da ko jaarale woon ci autorité yi ci ne woon ngir xam ne civil da sëriñ sa yi ko daa wax ne civil du lijjanti moroom suivre hmm. loolu waral sëñ bi jiite nañ ci ngir bëgg lépp loo xam ne war nañ ko caa taxaw ñu ànd ko nañ taxaw ne ndigal ñu ci ñoom ñu ànd ko ñoom sëñ Mourou sax ñu leen ci sant waaye rek nañ yee salaatal jàpp gi ak engagement bi hmm. ndax yëg nañ yëg nañ ne rek di ko sëriñ bi waxee taalibe bi yëpp maase nañ ci jëfe ko loolu nag seen dimbal rek la hmm. ndax sëñ moom bëgg leen yiw ak alaaxira rek moo tax mu digal ko